na ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ñu fexe ba élection yu jaax ci yoon ndax loolu am nga ci yaakaar. alors euh, c'est une c'est une question très très importante parce que élection dafa am solo. lool ci stabilité ci ak la euh, le calme le développement ci am réew. l'expérience a montré que Afrique heure bu am réew yëngatoo rek souvent ñaari cause majeure ñoo ci ëpp benn élection bi ci des compétition sur les ressources naturelles mm-hmm. élection yi dañuy dañ cee commencé ñaaw njort mm-hmm. nañ ci commencé ñaaw njort parce que depuis deux 2019 la waroon am mm-hmm. président Macky Sall jekkuwul à trois reprises dàq na élection yi ba ñu dàq ko tey dañ ca dañ ci am ñaaw njort parce que li nga xam ne loi daf koo may opposition président Macky Sall ak ministre de l'intérieur dañu ko bañal mooy l'accès au fichier électoral article L 48 dans l'ancien code L 49 dans le code actuel man en tant que responsable chargé des élections ci PDS ma bind personnellement à deux reprises le ministre de l'intérieur ne ko loi moo ñu may ñu mën a am accéder ñu mën a accéder au fichier électoral ñu man koo saytu ba heure buñ ci àggee ñu mën a xam mbir mi yëpp aw na yoon ba boobu ba léegi war naa mat at fi ñu toll nii biñ ci topp ba léegi di ci daw ministre de l'intérieur bañal ñu loo xam ne loi moo ñu ko may dañ ci ñaaw njort parce que dañoo nekk ci contexte boo xam ni dañoo dindi parrainage wante mu am ay manipulation yu am ba ñu invalider ay liste opposition yu bare bare bare bare et dans le même temps benn Bokk Yaakaar ki n'a pas de compétence particulière ñu gis sur les 559 collectivités territoriales amul fenn sax fu ñu lajj loolu mu nekk d'abord lu tey xel mhm. mais qui montre manifestement qu'il y a aujourd'hui un parti pris de l'administration territoriale contre l'opposition mhm. enfin ñu ñaawte ñu ñu ñu ñaawte njort parce que gis nañ ni yooyu invalidation dafa viser principalement les listes Yewwi les listes Wallu mhm. ñaawte njort également gis parce que gis nañ ni ah euh, Benno Bokk Yaakaar da euh, président Macky Sall ci boppam da cee def lu ñaaw ñaaw mooy ki nga xam ni moo nekkoon ko mandataire de Yewwi à à à Matam mu daw ak liste ñu gis mu recevoir ko au mu nekk une prime à la trahison boo xam ni la plus haute autorité du Sénégal moo koy joxe di wane ni ah valeur yi nga xam ni moom la ñuy xaar qu'un chef de l'État man ko promouvoir dans sa jeunesse président Macky Sall dafay nekk un champion de ces contre-valeurs là. Mm-hmm. Enfin, euh, comme à son habitude ni ñu ko gisee. ñu gis benn bokk yaakaar commencé na génn ay maletu xaalis déjà naa la pré-campagne électorale di jënd ay conscience au niveau de la banlieue te loolu gis nga ko. dañ koo gis parce que ah, boo gisee boo gisee donc euh, benn benn benn kaaru mobilisation ñu ciy fay deux cent cinquante mille à cinq mille francs ak jënd caare kaw donc day wane ni c'est manifestement donc une achat de conscience. bi benn bokk yaakaar tàmmoon la ñu tàmbaliwaat dans la banlieue parce que ñoom balaa ñu leen gis ak de l'argent dans la banlieue rek ñu egsi ci euh, euh, ci ci ci ci ay élection lu bi ñu àggee élection banlieue intéressé na président Macky Sall et son pouvoir buñ paree élection ñu ñu ñu sànniwaat leen parce que ñu àggaar élection tous ces facteurs là réunis mm-hmm. nous montrent que nous allons vraisemblablement vers des élections qui risquent donc euh, en tout cas euh, de ne pas avoir la transparence attendue mhm. que les tentatives de de de détournement des suffrages des Sénégalais mhm. le refus du ministre de l'Intérieur de respecter les lois électorales loolu lépp dafay wone ni ah président Macky Sall nekkul comme d'habitude dans des dispositions à organiser des élections libres transparentes est, est, est, est digne du peuple sénégalais. d'accord ah, alors docteur. loolu nag da ngay def par rapport aux enjeux dama la dama la déggul nga apprécier mode scrutin bi parce que ku ne xam ne doléance la woon pour que mode scrutin bi nekk euh, élection bu direct cest di mu bañ a nekk li nga xam ne moom lañ doon dund ak les conseils municipaux après ñu nommé ki nga xam ne moom mooy seen maire. mais mode boobu nga xam ni aussi ci magistère am la amee changement. Mhm. ba nga xam ni tey bu ñuy dem ci élection mën nañu xam ni diw mii mooy nekk maire mhm. ndax loolu itam du lu ñu mën a apprécier. je pense que loolu. loo xam ni c'était une forte revendication de donc man pour man c'est important aussi loolu ñu apprécier ko c'est une forte revendication de l'opposition qui a été obtenu ci dialogue national mais, mais c'est important aussi ñu apprécier loolu lu ñu rafetlu bu voilà d'accord merci beaucoup alors Mamadou Mamadou Ngom Niang mm-hmm. dégg nga li nga xam ni moom la cher Cheikh yi wax xelam dalul ci élection yi mm-hmm. joxe na ci exemple yu bëri yoo xam ni wax na ko wax na sax ba wax li nga xam ni moo xew Matam ak Jibril Ngom mu ñaawlu ko lan nga mën a wax ci euh, yéene bi nga xam ni président am na ko ak moom ni mu gisee yéene président de la République bi waaw rafetlu déjà le message de son excellence parce que même bi muy def euh, son discours à la nation rappelé na loolu mm-hmm. pour wax fi ko jàmm ci élection yi toll c'est la kuy wut jàmm ci réew mi rek moom ngay jàppale ndax moom la ñu dénk réew mi mhm. biñ ko koy jox ci jàmm lañ ko ko jox et je pense que tey bu yoree réew mi aussi ci jàmm la ko war a yore ñu ngi dem élection président xam na ne coalition yam tolloowul doole ak coalition yi fiy coow yëpp il le sait mhm. par modestie et aussi parce que c'est un démocrate moo tax mu lal bassan bi ne aca mu ngi noonu nañ ci dem ci jàmm nañu fair play rappeler aussi histoire Sénégal ci élection façon élection bu ne jaar na fi kàngam yu ne mbëkkante nañu fi te terewul Sénégal continuer di doon Sénégal ba tey tout à fait s'il nous rappelle cela de tous bords mu opposition comme pouvoir ñi mu njaboote ak ñi njabootewul politiquement parce que mooy njaboote ñëpp en tant que chef de l'État mais je parle politiquement ñi mu njaboote ak ñi mu njabootewul je pense que ne il est de bonne foi et que loolu mu wax aussi sénégalais boo xam ne Sénégal ñor na la yow war nga mën a doxale noonu bokk fi nga bokk campagne fi nga campagne et que aussi nga gëm ne sa réew benn réew gënu ko baax système euh, politique système euh, judiciaire système électoral loolu dañ ko war a gëm man dama gëm ne tey mun nga ma tane économiquement mais gëmuma ne réew gën na suma réew mhm. conviction la moom nag bu ko neexee mu jàpp ne dara baaxul si réew mi c'est son affaire mhm. mais man amul ku may toogal du américain du espagnol du français gëmuma ne réew gën na suma réew c'est ma mes convictions je peux me tromper mais loolu laa gëm mhm. et je travaille chaque jour à avoir raison sur ces gens-là moi j'ai pas un complexe par rapport à qui que ce soit parce que tey amuñu complexe ci ay Europe yoo xam ne fii loo fi dénoncé tubaab def na ko ba toog donc amuñ leçon bu ñuy jël si ñoom nañu gëm suñu bopp loolu mooy wax ji mais toog demaguñ élection sax nga taxaw naan awma ci yaakaar parce que diw def na lii parce que diw def na lii mais même diw dafa demandé teg ba non mais même diw voilà daa am na si droit ah, foofu laa jëm même diw boo amul ci moom yaakaar amal yaakaar ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ce processus laa ñooñu même ñu la doyul amal yaakaar ci tas xibaar yi nga xam ne Sénégalu tey jii du Sénégalu démb nga xam ne da ngay toog def sa élection compter lu la neex déclarer lu la ne fi mu ne nii bureau de vote bu ne presse bi moo ne en avance même sur l'État en temps te ils ont les les les décomptes xam nañ ku ne fi nga gañe c'est pas pour rien gars yi bëggoon na ñëw dal si fii nii parce que gis nañu ñoom ñu ngi def un travail scientifique parce que ñoom. ce sont des démocrates ils investissent pour être à la hauteur yéen parti di ngeen investir su lu ne lu lu dem des si loolu li matériel bi ngeen jënd pour mun di def décompte boobu ñoom ils ont les moyens ils ne le feront pas parce que loolu ñoru leen ñii duñ gañe fen bu caaxaan jeexe kuy wax lii mbër muy dem naan dinañ ma daan parce que xam naa ne arbitre bi moom il sait que il ne il va être battu il le sait soyons honnêtes doyen et tu sais que tu n'as aucune chance devant tes Benno Bokk Yaakaar loolu mooy dëgg aussi yàlla dëgg la bëgg. Mhm. tey boo amoon ay chance dinaa xaw sa naan la ah moo ga sama gars yi mais yow bu boo fa amee un tiers des votes man ku am golo na ma ko tuddee man. Mamadou Ngom Niang si je le dis télé laa nekk parce que je sais que aujourd'hui